yéen ak seen i njaboot seen yàlla yàlla suñu borom bi réaliser ci seen i ay rêve ci barki Serigne Saliou Mbacke yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def defal leen ci xéewal ñi amul jëkkër am ci jëkkër ñi ci am jëkkër yàlla boole leen ak seen i borom kër mu téye leen ñi ci am njaboot suñ borom sàmmal leen seen i njaboot ñi ci feebaroon suñ borom fëgg seen bopp ñi ci amoon ay natt suñ borom gaaw delloo leen ci seen i njaboot waaye ku ci euh, ñàkkoon xaalis it yàlla na ci yàlla may xaalis yàlla na nekk 2021 mbégte ak xaalis bu baree bari ci barki Cheikhul Khadim Mbacké nii rek lañuy ñuy ànd ak yéen nag ci euh, yeewu leen plus bi sant yàlla ba ñu dooree li nga xamante ne mooy 2021 euh, bi tey le premier janvier 2021 ñu njëkk génn ci écran bi yàlla na mel ne ndoxum glace ci barki Cheikhul Khadim Mbacke ndax nee naa la euh, euh, sant yàlla rek ndax euh, dund at 12 mois yi yëpp nga di ko ànd di ko bëggal nit ñi 2021 bi ñëw la premier janvier nga njëkk cee ànd ak ñoom yàlla na nekk mbégte ci yéen mel ne ndoxum glace sedd guy nag émission yu bees yi ñëw bu ci nekk gën neex sa moroom ci barki Cheikhul Khadim xéewal bi nag saawaan baawaan dugg TFM dañuy ñaanal kilifa gi nga xam ne moo nekk ci kër gi suñ borom defal ko 2021 bu neex ba mu yeggali mbébétam ci biir réewam ndax xam nañ ne xol bi boo ko ubbee jàmm Sénégal kese kese kese moo ci nekk la mu wax démb rek moom amatul lu muy prouver amatul lu muy prouver moom Youssou Ndour def na lépp wax naak ñëpp defee na ko nu ne pour réew mi am jàmm suñu dëkk gën a dem ca kanam nee naa ko fonk réewam moo tax fu mu taxaw fu ñuy tuutalee réewam nga gis ci saa si mu jéng wala mu réagir Youssou yàlla na ko yàlla may jàmm ak képp ku jiite société ndax xëy na moom moo fës waaye benn employé rek ku ko am yàlla na la yàlla may jàmm may la li nga xamante ne nii moom nga bëgg ci sa société ba ñu ngay liggéeyal gis ci seen bopp ci barki Cheikhul Khadim ay ca yeewu leen plus bi nag nii lañ koy àndeek yéen tey ci euh, première euh, janvier bi ànd ceeg nag euh, sama xarit yi euh, Fat Ndigal mi nga xamante ne lu may def bëgg mu neex dama ko ciy boole moom ak rakam ju baax ji Aïda ah, ak euh, musicien yi nga xamante ne macha allah ñi ngi toog pour defal leen 2021 bu neex a neex a neex a neex ay ca duñ def rek lu dul bàyyi ko moom itamit laataa ñuy dem ci neex-neex bi dañ koy bàyyi moom itamit mu présenté leen merveille ñaanal leen ci at mu bees mi li nga xamante ne nii mooy nekk ci xolam ak xalaatam duñ def rek lu dul ne Fatou Ndigal ñu ngi lay ziar mes meilleurs vœux bonne année yal na la ci yàlla defal xéewal ci barke Cheikhul Khadim mi nga xamante ne bokk nañ ko te mënuñ ko séddoo yal na la yàlla bàyyeek sa njaboot ak say waajur sénégalais yi ñëpp a ngi lay seetaan. waaw asalaamaaleykum Amina waaye asalaamaaleykum waa senegal gannaaw ba nu sante yàlla nag di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ sëñ Cheikh fan ndigal mu ñaan di ñaan mu yàgg fi loolu te wér di wax ne jërëjëfati sëriñ Saliou di nuyu àdduna di leen wax mes merveilles di ñaan atum naataange di nuyu sama waajur di nuyu ñëpp di nuyu Aïda mi ma toogal sama musicien di nuyu sama fan si di ñaan yàlla na yàlla def jàmm amina ay ca ñu bàyyi Aïda moom itamit mu nuyoo gaaw vite fait maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal atub jàmm ak salaam. amiin maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax sama rakk ji maa lay nuyu maa ngi nuyu waa groupe yëpp. yal na jàmm ay ca yal na jàmm am Sénégal bu leen fàtte ni nag euh, mbir mi euh, seen teraanga Sénégal euh, tey jii la gën a am solo ci yéen tey la gën a taxaw pour jox leen li nga xam ne mooy seen ay cadeau comme ni ko defee woon daaw ci 2020 bi jeexal ko ci février bi incha allah rabi ci kàttanu yàlla ak yonent beeg mbaaxam noonu lañ koy defaatee ren ba février teraanga Sénégal tey la gën a taxaw pour jox leen seen cadeau fin d'année nee naa la kon numéro téléphone yaa ngi noonu ci ban d'écran bi mën ngeen gaaw wooma comme man Amina Poté ni ma koy defee chaque jour téléphone sur téléphone tablette yaa ngi euh, tege télévision yi frigidaire yi salon complet bi euh, parure bi nee naa leen lépp ngi leen di xaar un million bi euh, tous les dimanches ak bay Cheikh Diallo nee naa leen lépp mu ngi leen di xaar woo leen ma gaaw ci 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 76 76 pardon 88 628 04 05 ñu àndandoo ci téléphone bi mais laata loolu nag dama bëgg Fat Ndigal wéyam bu euh, euh, euh, wéyam bu njëkk ci 2021 bile yal na ko yàlla fulal baatam wéral ko te def ko mu nekk yokkute comme ni ñu amee yaakaar ci 2021 bi yàlla bu yaakaar tas ci dara ci kattanu Serigne Touba kilifa yaa ngi ñaan nit ñu baax ñaa ngi ñaan yàlla na yàlla nangu seen ñaan dañuy découvrir rek ci mille vingt 2021 bi faatu Ndigal wéyam bu njëkk moom ak rakkam ak orchestre bi yàlla na yàlla ful leen ba kenn du leen mën ci métier mi ngeen nekk ay ca ñëpp a ngi lay dëgg déglu di la seetaan ñu ñëw ci téléphone bi léegi muhammadu rasulillahi jër nga wayal laay laay laay laay muhammad alquran yo musawa laa farag moom musawa ndeysaan Cheikhul Khadim sunu yaakaar a ngi naan

nabi baayu Fatima nabi baayu Rukiya nabi baayu Fatima nabi baayu Fatima laaye tàmbalee neex na euh, TFM gën di leen gunge rek ci at mu bees mi lee ci 2021 bi ndax safoo bi ngeen ko safewoo ak faale bi ngeen ko faalee dëkk di ko seetaan moo tax mu ne du ngeen wéet mukk ci at mu bees mi te incha allahu rabi bu leen fàtte ni programme yi ku ci nekk la la saf ci télé bi danañ defaraat programme boobu ba mu gën a yees ci 2021 bi bu leen fàtte ni téléphone bi 88 la 628 ma ñëw léegi jël te tey nag nee naa la kado yi dafa gën a duul kado yi dafa gën a yokk waaye kado yi dafa gën a am maanaa 14 raisons yii may waaj ubbi bu ma ci ubbi njëkk ubbi rek borom dana kontaan kon gaaw leen woo ma ci w 628 ndax nee naa la tey kenn liggéeyul a ngi ci biir kër ànd ak TFM mu di leen wettali mais bu leen fàtte ni tamit euh, Omar Seve la ñu àndal les yaa ngi tegee euh, nee naa la fête bi day continuer euh, ku ci bëgg greffage rek dinaa la jël léegi teral la ci mais non seulement Facebook live damay dem nag jël fa ay numéro weev leen démb ñi jot a weev ñëpp jot nañ seen ay ni xaalis tey tamit dinaa leen jox cadeau ci Facebook live bi nee naa leen beaucoup de cœur pour nous ay xol rek lay laaj xol cœur beaucoup de pour nous nee naa leen ñu àndandoo nag jël kenn ci téléphone bi téléphone baa ngay toj d'accord damay jël kenn léegi ci téléphone bi woo leen ma ci ruubi 628 22 22 allo soxna si wala sëñ bi mobile la dëkk bi la neex nga daal loo fa fekk yaa moom sa cadeau la allo soxna si. allo Amina. def. ça va alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm bonne année. bonne mais meilleurs vœux ñu ngi lay ñaanal jàmm ak sutura gu sax dàq gudd fan. mën nga ñu wax fan ngay woote ak noo tudd. maa ngi tudd Amina maa ngi woote at mi yow lan nga ci fas Amina loo xam ne bëgg nga balaa 2020 bi di jeex yàlla may la ko. yàlla may ma kër gu baax rek mu ànd ak sutura xéwal. bu sant Dieng wala bu sant Niang. lan nga ku baax rek mbër mu dut bëre jeex na yàlla na la yàlla dégg ci barki Seydina Mohamed Aïcha Amina euh, yaa ngi kontaan ci TFM kado yi mu di leen jox macha te Amina Amina li ci gën a neex mhm. bu ma la ubbilee dëkk léegi de sa kado moom yow tey day duul te ki topp ci yow mooy ëppale ki toppaat ci yow mooy ëppale xamal ni TFM lépp kado la pour yéen mais bu la neexee boo kuppee ba jël sa kado jëndaat sa crédit woowaat ñu amaat ci kado yi. incha allah yaa ngi am jot di ñu woo ñun ñi ngi am jot di la jox. te bu ma la tànnalee dëkk ba pare Amina ki topp ci yow rek dama koy daal di jël duma xaar tey ndax damaa bëgg li fi nekk lépp jeex tey liñ chargé ci téléphone bi léppay jeex tey. kon jeex na ñu àndandoo <coughs> tànnal Amina benn euh, raison ci les quatorze raisons euh, du Sénégal Amina. Uh-huh. ayca ma bëgg a xam rek dëkk yi Saint-Louis la tàmbalee ma nga wàcc ba Kolda 14 raison yi ban moo ci sa raison préférée. man ngi yaa ngi dem jël saint wi ci kaw. waaw. ay ca ñu laalal ko saint wi ñu xool saint wi àndandoo compté ak moom Amina yaa ngi xool. maa ngi xool ne nii lan la def nii kart bi lu mu def. carte génnagul. bu génnee nga wax ma ma xool ndax man damaa mi yopp. bu génnee rek wax ma man dama mi yopp daa mel ne Saint-Louis bi ñëw na de wala des na ñëw na ay ca Amina kon da bëgg ñu ubbi bu leen fàtte ni Amina bu coupé subito damay jëlaat keneen subito nag mooy léegi léegi ci italien ay ca 88 628 22 22 après Amina rek damay jël ki topp ci moom ma dem ubbi euh, Saint-Louis li fi nekk dañu koy maye seen ay cadeau le 4 3 1 0 Saint-Louis pour Amina Waagu Ñaay 100 francs. Amina. xanaa Amina lii neex na nag. neex na trop. liggéeyoo tey la feet xëyoo gontoo ñu jox la 100000 francs ci fajar gi mel na tëggkat baa ngi di composé ba nga woote. <laughs> Amina. dama lay gunge ba message bi yegsi ci sa téléphone. macha allah. est-ce que xam nga Wave. xam ko. ah. waa ah. ah, Amina. xaw na di. yegsi na. yegsi est-ce que xam nga ne bu ma bàyyanteeg yow léegi damay jël ki topp ci yow. ay ca bonne journée merci beaucoup na rees jàmm. lan ngay wax ci teraanga Sénégal bu mu sedd de. teraanga Sénégal laay nuyoo.

damay jël téléphone su ma paree Facebook live damay dem téléphone ndax xam ngeen ni man mbir mi man moom làkkat laa day gaaw rek awma caaxaan. man nekkuma fi sax di baaral ak di di di xaar rusi bu dog man damay tukki léegi keneen defante waat ak moom nii euh, teraanga Sénégal euh, fi mu nekk nii euh, seen biir kër tey la leen di fekk Wave bi fekk leen fa bu ngeen amee jot dem ci agence Wave bu leen gën a jege jël seen xaalis ñëwaat toog Facebook live laa jëm euh, Facebook live laa jëm jël leen numéro Aeva jël leen gaaw benn numéro Facebook live Facebook live beaucoup de cœur pour nous Aïcha di ñaanal waa Facebook live jàmm at mi nekk seen at yéen ñi ñuy seetaan ci réseaux sociaux bi euh, Instagram Facebook live YouTube euh, foo mënti di nekk di xool TFM ci sa biir kër ci sa télévision ñu ngi leen di ñaanal at mi nekk atum naataange ci yéen atum ndam atum jàmm at mu bari xaalis te du am feebar. ay ca a jël Facebook live waaw jël leen jël leen numéro bi maa ngi jël ku tudd ngoone Ngone Diallo Ngone Diallo 77 euh, 191 58 36 191 58 36 ngoone Diallo damay ñëw léegi jël téléphone 88 628 euh, 22 22 88 628 euh, 76 76 88 628 65 65 ngoone Diallo Ngoné Diallo mu ngi ci Facebook live bi dama ko bëgg a wéev léegi jël leen numéro am Eva 77 100 80 191 58 à 36 ngoonee jàlloo mi ngi ci Facebook live bi ma àndandook euh, euh, sama xarit bi sañseel ma cuub bu rafet bi ndekete tissu yu baax yaa nga ca Seydou Daba foofu ca marché HLM dem leen nee naa leen moom waxul ak ñi nga xamante ne nii bugguñ lu baax Seydou Daba mbiram yomb na neex na te jaaykat yi ci réew mi ñëpp moo leen di jaay ñuy jaayaat nee naa la bés boo demee ca euh, place ba danga yéemu jàppale doomu aadama rek la mën Seydou daaba la ñu koy wax ca marché HLM moo ma sañseel cuub bi du Suisse moom la ñuy maye fii waaye du Swiss Gold rek la am ay ngoone euh, laay xaar ni ngoone rek laay xaar jëlaat téléphone 88 628 ma ubbiwaat xam naa 200000 a ngi fi 300000 a ngi fi lépp a ngi fi tey nee leen le premier bi du yomb ay ca ngoone ngoone yaa ngi ci jàmm. ngoone ñun ñoo la woo woo woo waaw waaw kon xam nga ne mbir mi euh, du loterie euh, du gagnant du natt boo fi bawoon ndax ki la yéene ba di la may woo la kon xam nga ne dañ lay jox cadeau. waaw loolu mais est-ce que Ngoné yow xam nga Wave. xam naa loo xam ci Wave loo ma mën a waxal lu baax ci Wave. ah noppal gaaw leen après Ngoné damay jël keneen te bu ma ubbee ëpp na lii. ni ñu koy waxee rek sa xaalis yaay boroom. yaay boroom ay ca ngoone démb min wi fu la fekk. démb maa ngi toogoon fii seetaan TFM Papa Youf. noo ko dundee ba nga duggee ci deux mille vingt et bi ak lan nga njëkk a ñaan ci at mu bees mi. ah nee na moom at mi moom yàlla na yàlla defal jàmm. corona demal ci barke Cheikhul Khadim moo tax TFM ubbee nii ubbee ay cadeau le premier janvier li njëkk a def teraanga Sénégal lañ ubbee at mi di leen ci jox xaalis di leen ci bégal pour 2021 bi nekk mbégte kese ma dem delloo euh, euh, Saint-Louis place am ayca les raisons viennent ayca ñëw na ah waa Facebook live la alo allo jot na ko <clears throat> allo. jot nga sa message wave. non non ñëwagul de. ñëw na ubbil sa téléphone nga xool nga wax ma ma xam ndax yegsi na. waaw xaaral ma mbool. ayca ma demaat Facebook live téléphone 88 bu kii di coupé may jël keneen 88 628 22 22 88 ñëw na. allo ñëw na. waa xanaa lii neex na nag. waaw na moom ñun lan lañ la def ci 2021 bi lan rek lañ la def tooñu ñu la de. non tooñu wala moom macha ay ca continuer di ñu seetaan te xam ne maa ngi ñëwaat léegi Facebook live damay demaat jël téléphone bala maa jël téléphone nag tey damaa bëgg euh, sama waa yi daal di doxalaat tuuti rek ñu ñëw jugal amul du sedd 2021 bi bu kenn toog. bu kenn toog nañu ko ñambi ñëwal ñu dem mama jaloore tey ba mama Amina

Foto dooman damay doon géwél fu ñuy tuubee rek laa bëgg a xam fan la ñuy tuubi jee ba nekk géwél ah maa ko wax na ma sama askan bàyyi géwél la ma gënal li ma doon ah xam naa bu doon séeréer laa tey dañ may génne ci askan wi rek waaye man ku ma bokkal na ma bàyyi géwél laa bëgg a doon ay ca dañuy demaat téléphone rek waaye Facebook live tamit damay dem léegi tànnaat fa kenn nag mu am ci mbasin yi ndax nee naa leen li ñu yor yéen a ko moom te amul xàjjeeg seen foo tollu di seetaan TFM mbaa ngay déglu RFM mbaa ngay lire l'Observateur wala ngay xool suñu sit bii di IGFM ñun nee na lu ñu kenn déedéet ndax nee naa la askan wee ñu ñor ndax dañoo créer emploi nag ba nuppi di xool ñi ci mbedd mi nan lañu leen mën a jàppalee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooñu safoo faale ñu di ñu seetaan ñu di leen teral ci suñuy kado nee naa leen iPhone 11 bi 12 bee ngi nii Pro Max iPhone 12 Pro Max Samsung bi nga xam ne Fold du bi la nee naa la tablette baa ngi nii tege Samsung la Galaxy tablet ak xaalis bu baree bari chaque dimanche Pape Cheikh Diallo dina joxe benn salon complet joxe benn euh, téléphone gaaw leen woo ma damay jëlaat nii léegi su ma paree li may wax nii ci fulla damay jëlaat léegi doo ko doxalaat Pape gaynde njaay ci bésu gaynde yi rek lay génn parce que jour bi xale yi génn boo génnee da ngay fàdd moo tax dañ lay xàllal rek dimanche Baye Cheikh nee naa ko macha allah nday ja daa baax Baye jojub moo tax ñëpp lay bëgg pap Cheikh bàyyu da di bàyyi fàllu dañ lay ñaanal rek at mu bees mi sama mag ji suñ borom teg la loxo ak équipe bi nga àndal ñëpp ndax yow boo amee jàmm ñëpp am jàmm Baye Cheikh dundal ba doyal xam naa ma ngay nelaw yii ma koy waxal sax du ko dégg waay yow damaa bëgg a jël téléphone nga wéyal ma ko léegi noo dama koy fàtte demal ci moom ma ñëw jël téléphone ki ci liñ bi. Baye ko. kenn du wax ci moom di toog neel yëkkat ñu xool. <coughs> Cheikh nuyu nga. wa non damay ñëw léegi damay ñëw léegi posté ne leen ci enveloppe yi. ay ca euh, euh, Baye Cheikh Diallo yow loolu buñ la ko wéyee rek di nga ko bokk ak sa rakk yi nga àndal. te buñ ci tuddee Bijou Ndiaye tudd ci madoo tudd nañ ñëpp ba tax na xale yi ci tele bi muy xale yu jigéen ñi ci tele bi di sama ay nawle ndax àndu jigéen dafa métti. man nag maa raw poobar ci bët xale yi ñoom amaluñ ma àq maa leen amal àq ndax man damay ruube rek ay temps njaga woo ma ci ruq ne ma mayel ñëpp jàmm yow ay temps ay temps njaga ndur daf may woo ci ruq ne ma wuyu ma yow mayel ñëpp jàmm may may ñu jàmm ba tax na xale yi ci kër gi ah ñi ma ci xam ak ñi ma ci xamul ñëpp maa ngi leen di baalu ci at mu bees mii di leen ci ñaanal na ngeen yokk ba yëg ko ci barki sëriñ Saliou Mbacke mi ma am yaakaar ko man aw ma dara mais am naa Serigne saaliw de waaye man képp ku ma mës a booleeg Serigne Saliou daje nga ak moom moo tax bàyyi naa leen ak sëriñ Saliou yéen sama collègue yi ci kër gi ñoom Bijou Ndiaye madame si yàlla sa jàmm yàgg suñ borom boole laak sa jëkkër mat leen yàlla na la yàlla may jëkkër ci at mi Coro Mbaar sama doom ju jigéen jooju doomu bébé baas palaato bi ku lim juum xale yi ànd ak pap Cheikh rek ñoom Awa sama rakk ji ah sama gambien bu rafet boobu boobule ñoom ah, Maymuna ah, ah ku lim juum bëgg naa tudd ñëpp waaye kenn du besel baas sama mag jooju nga xam ne fu mu toll mi ngi may waxal lu baax baas loo dund doyul ñoom dërëm ah, xale yi ku juum doomu mbay peex bi xale yi ci kër gi yëpp ku lim juum xam leen ni yéen ñëpp a ngi ci sama biir xol man nag aw ma xàjjeeg seen ndax man noonu lay doxee man man damay bëgg rek ñëpp xam ko. mbaama moytu rek ñu xam ne maa ngay moytu moo tax je t'aime yéen ñëpp bëgg naa leen yal na leen yàlla defal jàmm ña ca rajo ba ñi liggéey ci lobs bi képp koo xam ne yaa ngi xëyal Youssou nduur sa ñaq yàlla bu mu niil ci barke Serigne Touba 2021 bii yal na yàlla may ñëpp jàmm waaye képp kuy ànd ak Youssou Ndour di ko dooleel te amul benn féeg ak naa naaféq yàlla na yàlla ful ba nga raw ko moom ci boppam barke Cheikhul Khadim ñu demaat téléphone 88 628 waaye kenn du borom teraanga Sénégal Pape Cissé yal na ko yàlla may jàmm nee naa man ku bañ ma tudd la ci tele bu ma ji lu baax kër gi ñëpp a baax waaye féete day am Pape Cissé ku njëkk ci moom ndawalu guddi la ku njëkk ci moom da ngay foog ni yow la gën a bëgg Pape Cissé yaa baax yaa jàppale Youssou nduur yaa bëgg yokkuteem loo ko wax mu ne waaw bu paree vérifier xool la ca gën mu def ko Pape Cissé yàlla sa jàmm yàgg sa njaboot yal na leen yàlla may jàmm ci barki Cheikhul Khadim kuy def lu baax nag dañ lay ñaanal ndax yéene waaye yàllaa la gën a baax moom mi la war a fay ñu dem téléphone 88 628 22 22 ma jëlaat keneen defaat nii waaye kenn du sama xarit bi amadu mii di joxe xaalis bi kii yow amadu amadu noo sant am Amadou seen cim xamoon naa ne seen sëy sëy waaye yow man sama mag ji madame sëy la yow amadu yow li tax nga sant sëy nii Amadou maa ngi ñëw bàkk la ay ca 88628 ma demaat léegi Facebook live joxewaat fa euh, euh, li nga xam ne mooy sama teraanga jox ma téléphone alo <coughs> ah, soxna si. ça noo ma gisee ci 2021 bi dafa mel ne dama cee profité rek rës benn yoon sama pata topp 20. man na sama pata topp 20. ah. ah Alaaji Malick sama pata laa bëgg mu topp 20. ma yi allô. allô maa ngi lay présenté mes meilleurs vœux. ngi la si ñaanal jàmm ak jëkkër. xale yi jëkkër rek lañ bëgg. koo ci ne yal na la yàlla may ay millions mu ne ak jëkkër ju baax. te góor ñi dañ leen di mbugal rek tee ngeen liggéey. tee ngeen a jàpp seen liggéey yi. wuy ma. xaalis jëkkër liggéey bu la gënal. mooy xel ñaar ah ay yow laay xaar de pour tànn dëkk bii nga bëgg ki topp ci kii dama koy jël te dinaa ko teral ba pare way ko woo leen ma gaaw ki topp ci kii laa wax de dinaa ko teral ba pare wëy ko te la ma koy jox dépense su at lay doon xanaa kon 2021 bi ni mu annoncé neex na yow wuy ma noo tudd. man Aïssa Diagne. foo may woowee. yaa ngi wootee fii sori waaye soxlawul déplacé Wave moo lay fekk si fa nga ne léegi ci ay seconde mhm. léegi nga ne yow xaalis liggéey jëkkër bu la gënal. est-ce que waaw waaw bëggal xaalis nangoo koo liggéey rek dégg nga ay Aïcha kon ma dem tànnal la sa euh, raison euh, préférée. te nga tànn wakaam rek kon. Jurbel. nit ñi nit ñi xale yi nennu nan Jurbel waay. ay waay waay dan naan dëkk ba daa sel TFM du fa denc lu ndaw ay waay yow boo demee Jurbel fekk fa ñetti dërëm lan ngay wax ki topp ci moom gaawal ay ca malaal Jurbel uh-huh. ay ca Jurbel ay ca ki topp ci moom 88 628 bu ma paree kii rek dama koy jël I love you so much baby I love you ay ca ay ca euh, démb lan nga njëkk ñaan ba 2021 nuyoo dama ñaan amin waay amin yal na la yàlla dégg loolu noo def ma ubbil la ci Jurbel defal la ci lu rëy pareel de maa ngi ubbi de pare nga. waaw ma laal. takk nga sa fit. Mm-hmm. ñeme nga ma. waaw vient 4 waaw 3 2 0 waaw d'accord 50 000 Diourbel 50 ayca euh, taxawal léegi léegi ñu jox la ko ndax nee naa la mbir mi euh, euh, du loterie moo tax amul perte fii boo duggee boo dugalee 100 francs ci ñun wala 500 francs même pas 2 minutes ñu jël la jox la bénéfice 200 pour cent ngay am moo tax nee naa la cadeau rek lañ ko mën a tuddee ak yéen ñi ànd ak ñun boobu ba tey ñu bëgg leen a njukkal moo tax nii lañ koy defee ah. jot nga ko. jot nga ko. xoolal. xoolal gaaw damay dem ci keneen nii léegi léegi bul yaa xam te jëla sa temps ni ñu lay tëyee te daggul deful dara xam nga ne yóbbuwul sa dara jëla sa temps rek. ñëw na. lan nga ñuy ñaanal ñun. amal rek. waaw jërëjëf jërëjëf waay Aïcha jërëjëf Aïcha. ki topp ci Aïcha laay jël nii 88 628 euh, ma dem Facebook live joxe waat sama teraanga Facebook live maa ngi fay euh, maye léegi Jesner jël leen numéro bi 77 ku tudd Assane naka la Saar Assat Saar Assane Saar numéro mi ngi ci 77 700 mooy 7 ak ñaari 0 700 comme 700 francs 77 757 28 77 700. 57 28 Assane Sarr am nga fi jesner bu dee góor nga kulóolu góor bu dee jigéen kuréeru jigéen ñu doxal ba ci kanam faatu ndigal loo yuuxu doyul demal. waaw. waaw. nuyu sama bàjjen Fat Ndaw loolu yoon la bàjjenay bàyyi. moo ma solal li rafet lii. waaw borom daba couture style. macha allah bëgg dëkk ca nag amitié. waaw. Euh, tubaarkàlla démb daf maa defal bu mu baax. waaw la tubaarkàlla boole koog dalal mag xale bu baax boobu di soora. ndeysaan numéro di 77. 566. macha allah 22 62. ndeysaan 77 waaw 566. 22 62 62. ay Fatou Ndaw merci beaucoup ci li nga ma defal sama man kii mooy sama star ah. waaw loolu la yàlla tey ma ko dama ko bëgg. mais bu la neexee nit ñi tànn cox nga tànn miche man je préfère Fatou Ndigal. dëgg loolu. ay ca loox loox doyut. kon ñu ñu ñu ñu ñu dem ci jàmbi su mérité après nga ñëw ci doo sondeel bi ma bàkk ba réew mi yëpp di wax. loolu moom dama cee bëgg dama bëgg sax ngeen bàkk ma ko man. dëgg neexul waaw dama bëgg ngeen bàkk ma ko. waaw ndeysaan bàcc seen xadim bàcc suñu théâtre kat bi. ay ca Facebook live continuer leen te xam ne bu ma paree rek ci yéen laay ñëw. ayca demal ayca kon nag ñoom sama groupe bi tamit ma leen di gërëm ñoom ca la seen surtout sëñ sëñ bi ñoom Basirou ñi Baye Fall tubarkalla élage sama mari mbisi bi ñii rek ñoo ñëw waaye ñëpp a ngi nag ci groupe ndigal jàppi su merate dawarate loo waxtaana jóg mu am xorom day bañ di gaaw too Samba Diallo live mayewaat beneen cheveux bu am classe full less boo xam ne yaa koy dagal sa bopp fii ñu fi joxe bees la ay ca cheveux bi maa ngi koy may kuñ naan jaara caw jaara caw bu ma juumul euh, amoon ah, bokkul ay ca 77 la bind leen jaara caw 946 euh, 65 93 xale yaa ngi wootante ci seen biir dem leen Facebook live ma ngay toj mais YouTube bi it ma ngay toj ay ca waa Facebook live mayewaat naa fa léegi nii cheveux ah, tey duma leen wàcc benn yoon mais damay jël téléphone 88 628 bu leen fàtte ni Wave mi ngi toj àddina bi bu leen fàtte ni Wave mooy transfert d'argent bi gën a wóor ba pare am sécurité macha allah sa code kenn mënu koo sàcc ba di la sàccal dara dem leen Wave bu ngeen di dugal ak bu ngeen di génne yëpp 0 pour cent ah, gratuite lay nekk 1 pour cent cent euh, bu fekkee fay facture la gratuite hmm, lu ngeen di dugal rek. un pour cent la 1 pour cent nag buñ ko waxee ñu wax ak ñi nga xam ne comprendre mooy boo waree fay junni boo daan fay junni ci dugal xaalis mille francs ngay fay boo daan fay mille francs ci dugal xaalis fukki dërëm ngay fay te boo ko amul ki dugalal may la ko xanaa wéef moo neex ah fukki dërëm bu jëree xeex ñu may la ko di boo demee di dugal xaalis war a fay fukki dërëm mu jaral la xeex ndax man dama benn maire boo xam ne danoo dëkk ñu indil ko facture cent cinquante francs fanweeri dërëm muy xuloog borom engin bi mais lii dafa seer mosuma ko fay kooku yëkkati deux cent may ko kii joxe facture bi yëkkati 200 may maire bi maire bi ne ko damay fay mu ne ko man duma caissière bi nag danga koy denc fii ak un mois nga dem fay waaye Wave boo demee di dugal ñu ne la li nga dugal lépp fukki dërëm la nga nar xeex dan la koy may te sa xaalis dana yegg nga war a fay junni nga fay 1000 francs boo naree xeex ñu ne la 1000 francs du dara ka fa nekk bu laabiree ba mel ni man dala koy fayal te da ngay dajeeg sax koo xam ne dana la meer garaal baal mu jàll Wave daal warutoon tudd Wave xam nga nu waroon tudd mbartalu ak yomb yomb ay ca kon téléphone lay dem jël 88 628 ci seen teraanga Sénégal nee naa leen dimanche sama mag ji dina fi nekk Baye Cheikh nee naa ko yow ku la am jël ku la ñàkk wuti la waaye man ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox nee naa la yow bu ñu la jiiñee jaam du yow bu ñuy waxtaanee ku bon woowuñu la bu ñuy woo kuy sàcc woowuñu la bu ñuy woo kuy worit yow Baye kenn woowu la barki sëriñ tuuba ñu wax dëgg te dee ndax at mu bees mii loo ci tàmbali mooy wéy dañ ciy tàmbali nii dëgg sama waa jee ngi lay nuyu. surtout sëñ sëñ Bay ngi lay nuy waa kër Mbay Gay rek ba tax na Baye Cheikh bu ñuy woo ñu bon ñi yow kenn woowu la ndax réew mi suñ borom dimbali na la ñi nga àndal ñëpp ñi ngi leen di tudd yàlla dogal na ne nag man damaa ñëwaale sama mbubb mbonaat laa la ma waxoon la waxoon dem si yàlla si ba muy dund ma ne ko man moom yàlla dogal na ni samay dunk laa indi ci tele bi waaye ndeysaan musóor ba dem na ci yow Baye Cheikh kilifa yi nga àndal ci réew mi ñëpp delloo woo leen gannaaw nga njëkke ba nga koy seetaan ba nga paree 2S bii nga dem barki Serigne Touba El Hadj Ndiaye bëgg laa tuddee peps boobu keps a nga fa ñu ne keps bëgg bëgg laa woowee peps ne ko baal pap bi rek nga dem ci Bougane Gueye mii macha allah yow koo àndal da nga koo yokk wàññi woo yàlla na sa jàmm yàgg dimanche nag dana maye 1 million ak téléphone te lii ma ci wax dana ci jël ci poosam 1 million boppa maye ko ci ay ca ñu dem ci téléphone 88 628 22 22 88 628 60 65 65 88 628 20 20 daw leen numéro yooyu ma leen jox bu ngeen ci làmb rek parce que lépp mënul fees moo tax ñu def ko ay numéro yu baree bari parce que nee naa leen ay cadeau fin d'année la bu fekkoon ne du cadeau dañuy def ñaar ba ñetti numéro mais fi mu ne numéro yi ni mu toll ñun sax mënuñu ko lim moo tax 88 628 20 20 88 628 72 86 88 628 22 22 ki dugg dana dana daj dara de fii ki ma koy ubbi léegi ah ki may ubbil fii léegi. man maa ko war a tànnal sax man ki dugg maa koy tànnal allo kii kay maa koy tànnal boo paree dem Facebook live allo. oui. naa def Aminata neel alhamdulilah rabil alamin li sa yaay liggéeyoon lépp tey lay feeñ. ah yow neel pat rek déglu ma ba ma noppi. waaw bu dee danga maa jiital ci loterie bi. bu dee danga maa jiital ci pomi ci tànn gi. waaw billaahi bu ma la génnee nga xam ni lépp dëgg la. Uh-huh. waaw waaw. léegi nag dama am ñaar. man dama am loterie à part mooy mbasin yi may maye. ak perruque yeeg yooyu. waaw lay bañ bu fekkee nag bëggoo ci loterie bi ci kado yi nga bëgg. ma dem ak yow mm-hmm. ci tableau bi. waaw ci tableau bi. Ah, ca cadeau ya nga jëm. waaw tableau bi tableau woo gagné woo loterie woo da ngay jëli sa cadeau. waaw mooy cadeau ya rek yow da ngay jëli kado rek. waaw kado ya kon. neel ca kado ya rek. waaw. ay ca kon ñu dem ca kado ya. nga wax ma sa dëkku préféré wala ma tànn la sama dëkku préféré. tànnal ma. ah loolu nga bëgg. waaw. ah tey ngay xam ne sa yaay mu ñoon na waay. Kaolack ñëwal waay man Saalum rek Saalum rek. billaay tey ngay xam ne joxaale ma sa tuur ndax boo amee émotion ñu mën laa wéy. innocent. innocent. innocent nga tudd. Innocentia Diatta. Innocentia Diatta. waaw. Innocence. Innocentia Diatta. tey Diatta tey ngay xam dara tey ngay gëj a nekk innocent wuy ma ma ubbi. waaw. préparé leen Innocentia la tudd Innocentia dama bëgg comme man la tànnaloo dama bëgg bu mu sedd Innocentia ma laal. waa laal naa. waa léegi xoolal. 4 3 2 zéro Kaolack cinquante mille francs CFA Kaolack Innocencie Diatta loo koy waxal Innocencie ma ñëw Innocencie e eh, moom daa mel ne daf mujj di feebar di ah. Innocencie <laughs> ino yaa ngi may dégg waaye yow loo loo loo investirul dara am ci fukki junni baaxul Ah, ah man de yéen lii tey bu fekkoon ne dañ koo def 5000 du gën a metti ah, léegi nag fukki junni yi bu fekkee danga nga koo xeeb ma ma bàyyi ba beneen yoon déwén nga jël si. ñu dencal la ko ba déwén. déedéet bàyyi innocence kon xoola sa téléphone. waaw. ah. waaw daa mel ne wéeb jaar na foofu de. non non gisatuñu message. nga am gan xoola sa téléphone. c'est ah c'est woy bi ma koy woyee la tax mu wàññeeku kado bi ndax dama koy woyee léegi lu rëy Innocencie oui. xoolal ndax amoo gan ci sa téléphone. non ubbil ma ma guidé la defal téléphone bi haut mbir moo xamante ne kado kado ay temps nga dajji ko fekk ci ballon nga dajji fekk fukki junni fii jamono ju toll. ah fukki junni dépense ñetti fan ah allo innocence yéeg yow de bu ñu la ko joxoon doox dara yow boobu ba tey yaa ngi yaa waaw waaw nga loo wax man ñii laa bëgg innocence yee waaye ngir yàlla xoolal ma message bii nag déglul opaleral téléphone bi ma dimbale la ay ca demal ci message yi wan ko ku jàng foofu. message. Ah, waa léegi demal message. waa def naa def naa message. léegi da ngay xool message web bi de boo gaawul gis ko bañ jëlaat ko ñun. ñëw na. ay ca ma dem Facebook live tëyal téléphone bi le temps que message bi di ñëw. ma demaat ma demaat Facebook live mayewaat beneen euh, euh, beneen wave Facebook live laa jëm de Facebook live ma ñëw faatu Ndigal préparel ndax tey damaa bëgg nag nga wéyal ma ku foor ci man hmm? damaa bëgg tey. nga wéyal ma koo xamante ne macha allah euh, euh, euh, gawlo la ci côté baayam waaye dammel la ci côté ndayam boo gisee bu ma koy tagg dama naan ko nduura waali mbergaan yuqu mi ci songum xeer bu ma génnee ku ne naan ma kenken keng tagg bi du noonu man xam naa li ma boole ci wetu yaayam yuq mi ci songum xeer la xam nga nekk noobul ñaari yoon loolu macha allah boo ko bëggee gis da ngay woolu Birane Ndour ba mu ñëw nga ne ko nu ñu lay taggee ci yaay dammel la ba pare macha allah buur la ci côté ndeyam waaye gawlo la ci côté baayam kooku nag Birane nduur lañu koy wax di ko ñaanal at mi yow ak ñi ngi ci àndal ñëpp sa papa yi yal na leen ci yàlla may ndam ndax man kër gi ñoom bu ñu yokkoo damay yokk moo tax nduura Waly Mbergane yal na yàlla yokku ndam li ci barki Cheikhul Khadim ma dem nag joxewaat euh, euh, ah ah ah message bi xoolal mu ngi nii ci télé bi xoolal sa télé. waaw. waaw léegi da ngay dem nga toog di nga ko gis ndax ñun bañ la ko yónnee gis nga valide na ko gis nga ah. waaw kay xam naa daa bëggoon ñu dolli peut-être waa jërëjëf saa sumaan <laughs> jërëjëf. waaw ah yow mii yow kii kii daa bëggoon ne. innocent nga waaw d'accord jërëjëf innocent këppal mën ngaa tàggoo rebonjour ay ayca euh, damay dem Facebook live damay joxe foofu waat tamit Wave ba pare Wave ndeysaan moo dégg ndigal Wave yàlla bu mu gaaw a comprendre da ko yoon yónni muy dem rek ci kanam tuuti mbaa duñ ko woo mu naan du ma dem damaa sonn Wave mii nag moo waroon tudd innocent fu ne nga koy yebal xoolal dama koy yebal léegi Facebook live mu demal ma te bu ma kër ci kanam tuuti damay jël keneen keneen laay jël léegi ci kanam ah ngir yàlla enveloppe bi may waaj a waat léegi ci kado yi euh, yàlla na ëpp mille francs wala mu nekk mille francs net ah parce que yaa a gën a noow yaa a gën a noow dama xaw a saay-saay ah, dama xaw a bandi ci pet ay ca Facebook live laa jëm ni Facebook live laa jëm nii Facebook live beaucoup de pingouin wave beaucoup de petits wave pingouin rek am naa ci valise penguin rek ay ca Facebook live maa ngi gis xale bu rafet bu tudd Aïssatou Ba maa ngi lay nuyu di nuyu nag ki nga xam ne 88 628 waaw damay jël téléphone su ma paree fii rek <coughs> su ma paree rek damay jël téléphone 88 628 20 20 88 628 20 20 sama benn xarit nee na ma dafa mel ne 20 20 bi moo gën a dox de ndax li ngeen koy tudd dafa bari mel ko léppay fonctionné xam nga 20 dafa neex ay ca 88 600 non 20 20 waaw

mbaa léegi damay jëlandoo ñaar tono Pape Cissé gérel ma loolu ma jëlandoo ñaar ubbeendoo ñaari dëkk ñoom ñaar ñu xamante nuyoo waxtaan nga xam ne teraanga dalay teral ba pare di leen boole xanaa mais xanaa Amadou maa graaw Amadou xanaa man maa ay man ay suwaay bi laa waroon tudd <laughs> dañuy dem euh, ci euh, Facebook live joxe fa waat wave ayca Eva Eva wala Kumba wol leen ma numéro bii ma leen di waaj a jox kii kala miyaa mes meilleurs madame Ndour madame Ndour happy birthday happy l'année happy new year happy ndeysaan sama xarit bi na mu naa Amérique madame Ndour sa blouson baax na happy new year happy new kooku la jëkkëram kooku la jëkkëram baax ba dangay ngay foog ni dafa ragal ay temps nag ci at mu bees mi bàyyi leen maa ngi Njaga Ndour ay waay ci at mu bees mi des fois xam nga nit dina la fiireek nit ndax danoo xam ne Njaga amut ci man sago dafa maa bëgg te pourtant njaga képp koo xam ne da ngay jàppale yuusu da lay bëgg njaga boo waxee mu ne yuusu du ñoom yàlla boo ko woone ko mais njaga gi mu ne ma hee pote yuusu nduur yàlla na yàlla defaraat gaaw ku mel ni moom mais suñ borom bala moo tëggaat ku mel ni yuusu nduur xam nga defar yuusu dafa jël temps dafa jëloon temps ndax fu ne nga bëgg faa daaj pour beleen de ko ndax bal du ko dal yàlla dina defaraat yuusu xam naa de waaye ndeysaan yooyu disku d'or papa xam nga Youssou chaque jour damay bëgg yooyu featuring boobu ministre ci mim réew woy ba mu neex la nga falu ci pale bi. am disque d'or bu yàgg. bu yàgg. ba sam papa ne woon ma at mi di ñëw da ngay way Youssou Ndour disque dëgg neexul soo ko jigéen biram jigi sàmb la kuréel saa ko paatee sàmb la gaañu leen. ba pare nag kenn gënu koo yaru ay doom ci réew mi. xale yi ñëpp a baax. ah waaye kaay ma wax la nag doomam yii bu ñu ree woon xam nga lan lañ leen di wax c'est normal ndax seen baay def na lu ne nag du ma ne def na fi lu kenn deful de waaye ay waay bala ñu koo tëkkaleeg nit ci réew mi nduur moo eh ku ko bëggul nag wéroo xale yi xam nañ de Sénégal gii ñoom ñëpp a bëgg yuusu sag la ci réew mi réewum tubaab yi boo demee kuñ fa tudd am na concurrence Europe ba Asie foo tukki artiste buñ fa tudd wala kilifa guñ fa tudd am nga concurrence waaye góor góorlu na nag ba maala mag rek nga ko mën a waxal. maa la gën maala la dàq way maa la gën a bëgg sa réew. Ndour ba mu boolee lépp ba pare macha allah chéri Aïda Coulibaly daf cee teg mignon ndax bu meloon noonu léew lu mu indi yëpp ba pare ñaaw sax ñu ne ñaawaay bi la ko yàlla fayee lii. li saa nee barki Sëriñ Tuuba ah. xale yi bugguma leen ay te téléphone laa jëm 88 628 mais Facebook live jëlal leen ma numéro bi ngeen wéev ko dugal ko mais jox leen ma téléphone 88 628 yàlla na jàmmam yàgg rek bàyyi coro bàyyi biraan bàyyi ndoy soxna yàlla na sa jàmm yàgg waaye bàyyi suñu président bii nga xamante ne suñu futur président bi Nelson Mandela dundal ba doyal man de ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox maa ngi ci sa gannaaw li ma naan ko xaw ma loo wëy waaye li fi def leer na ma ndax du ma déglu ay woy man bu ma namee musique coon laay déglu loolu ñëpp xam nañ ko waaye lim fi def ah yow it tamit ara nga ah waa <laughs> tono pap coo ngay laaj <laughs> coo nga poor démb yuusu dama ko ah dama koy dama koy seetaan ba ci yàgg mu naan Viviane sax way na ko ku mu neexul toppal fële te Youssou Ndour ku sañoon buy wax boole la ci nag waaw mais Youssou moom kañ lay wax naan ku mel ni Poté defoon na ko nag ba Macky faloo 2012 naan jëg leen exemple si Amina mais defaatoon na ko Grand Théâtre ca Koutiaba ne leen ku mel ne suñu Poté ah ah ah mais dafa war a wax Poté nag moom Youssou daa war a wax Poté ndax tey jii bu buñ ko tëggaloon kombaa dama naan ko doo bëre man mii maa koy xeex. ayca ñu daal di dem nag ci euh, téléphone 88 628 euh, li may waaj a joxe nii non man mënu wax ci Youssou sax di joxe ay ay ay 50 000 waaw. Amadou man mënu wax ci sama patron bi ak li mu fi def wuyu ma kii ubbi dëkk ki may ubbi laat non bu amee 50 000 da ngay démissionné ah. jeex na damay may tànnal kiy dugg nii 88 628 woo leen ma gaaw ci 20 20 Serigne Saliou xam ne ne kiy dugg man maa koy tànnal man saa ma waxee ci Youssou rek day ëpp loxo te lii may waaj def dina ëpp loxo te yéen ñi toog sax xam naa naa leen naa leen faj ba pare léegi. <laughs> kii moom may bégal waaye man maa koy faj ay ca 88 628 20 20 88 628 20 20 daw leen ngeen woo ma 88 628 20 20 88 628 72 86 nee naa la Facebook live Eva jëlal gaaw ma ñëw jël téléphone mais xaaral jëlal ma Facebook live doog maa jox téléphone euh, wéeval ma kenn mu ngi tudd Buri Mar Dioum 77 257 74 72 77 257 74 72 bu fekkee mën nga ma koo dugalal ba pare en même temps ma jëlaale téléphone mën ngeen woote ci numéro yooyu ma leen jox 88 628 20 20 bu ko ma woo léegi di ma jot te fi may ubbi dama koy giñ te man saa yu ma waatee ci Serigne Saliou rek xam nga ne noonu lay demee maay ubbi kii dugg maa koy tànnal bu bu bëggee bu bëggee. su bëggul nag mu tànn kii suba ku tànn wala mu tànn Kaolack tànnaat Kaolack nga xam ne dañ ko naan déjà déjà donné déjà déjà ubbi Kaolack déjà ubbi ay ca jox ma ki nga ma woowal ki ci Facebook live bi ñu ngi koy wax buri buri Facebook live laa bëgg duggaat wéev leen ku tudd buri euh, Mar Dioum 77 257 75 72 77 200 507 74 72 allo allo waaw ñëpp a ngi koy message ñëpp ngi koy bind alo téléphone laa jëm su ma paree ci kii noo def. allo. oui allo. def. maa que xam nga kuy wax ak yow. allo noo def yow. maa yow yaay Mar Dioum. waaw. ay ci yaa ñu doon seetaan léegi ci Facebook live. waaw waaw. ñun ñoo la woote du ah. Mar man la bul ma dégloo ci tele bi bala moo dagg dama la bëgg a jox sa cadeau fin d'année ci teraanga Sénégal ndax am nga ci paar jeex na tàkk moo tax tey jël nañ la xoolal sa téléphone ñu àndandoo waxtaan nga wax ma démb ba minuit jotee lan nga njëkk a ñaan ci at mu bees mi. Ah, di mhm. xoolal day dagg de wàññil télé bi xale yi léegi xam nga lu ñu jël di ma xool ci téléphone di ma xool ci tele wàññil wàññil koko ko. ay ca xoolal message bi ndax yegsi na. Massour message bi yegsi na. Ah, ñëw na kay. Oh, xool ko haut-parleur nga xool ay ca Facebook live laay demaat mais damay jël téléphone bu paree rek 88 628 20 20 88 628 20 20 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 76 76 88 628 04 05 waaye 88 628 72 86 bu leen fàtte 88 628 20 20 ku ma ci woo léegi jot ma léegi 88 628 20 20 ku ma ci woo léegi jot ma léegi ay ca numéro yu ma leen jox <clears throat> ku ci nekk mën nga cee làmb bu la saf léegi kado yi dañu koy joxe te bu ma ubbee léegi ngeen xam ne noonu laay continuer ba ba may tëj ay ca allo jot nga message bi allo allo ah jot na ko d'accord ma dem ma dem ma dem ci faatu ndigal ñëw ci téléphone léegi léegi 88 628 20 20 allo allo. xool nga sa message. waaw waa Amina. waaw merci beaucoup jërëjëf. ayca euh, euh, Fatou Ndigal damaa bëgg nga bàkkal ma doomu Njaga Nduur gi kooku baayam ak Njaga ak Buuba bokk ndey ak baay ak Ibu Nduur mii ne Prince Aar ak Ngóone Abi waaye macha allah di nga jur doom ne bu ma sañoon duma ko jur chaque jour nga gis ku tiim nawleem ne bu ma la mënoon wan naat waaye moom askanu ndeyam ku mu bokkal yaa ko gën a bëgg waaye askanu baayam it ku mu fi bokkal barki Serigne Touba Mbacke yaa ko da ngay foog ne yaa ko gën a bëgg. Birane yow loo dund doyul yow ak sa baay yi ci kër gi. yow yaay doomu Ndiaga Ndour yaay doomu uh, Boubacar nduur yaay magu Zeyna waaye yaay magu Pa Philippe waaye yow yaa bokk ak fi futur président bi Nelson Mandela suñu DG loo ci moom ma jël téléphone léegi damal. way wayum buur la. ko wayal soxna Youssou nduur Youssou maa jigéen Ndour yow yaa ko def rek dañu koy wax réew mi ku la fi xool ba bañ la na la yàlla bindee moo ko neexul ndax defoo fi lenn lu ñu la war a jéppee waxoo ci réew mi lu ko tas defoo fi lu ko yàq te yaa ngi jël nag sa doole di ko def ci biir réew mi su la neexoon dootoo xëy dootoo gont ndax yàlla teral na la waaye macha allah yaa ngi def ca lu baax te bokkook nag ak ni ko nit ñi tey di defee. Youssou deful dara luñ bind ndax lu muy def ci fulla la ko def te ku ko xool ba jéppi ko wéet na yërëm la ndax xam na ne bu sañoon nga mel ni moom góor góorlu nga ba ne ci kanamu ñëpp yal na yàlla la fa la cab ci barki Serigne Touba. balaa ñoo sori ay dañaay bi. waaw aji sunu xarit sunu fans dimbale ma rek may ma jël téléphone ñu ñëw ci loolu. du jeex du jeex may ma rek ma jël téléphone. kon Aïda loolu may ma rek Aïda dama bëgg woy boobu nga woy ma ko man. man la ko woyoon de Amina bu ko nangu. non da ko bëgg woy léegi kenn benn garmi aji xaw ma. ca fajar la bëgg a wëy aji ma ne ko télé bi tàkkagul may ma caméra yi ñëw mu naan ma kii mooy jaay borode ko tey ma ne ko télé bi tàkkagul ay ja 88 628 20 20 88 628 22 22 Birane Ndour dundal ba doyal loo ko wax mu ne la demal ci Njaga Ndour nee naa ko ku la xaar yàlla na xaddi Ndour ku la bëgg a sa baay yi ci kër gi yàlla na ko yàlla weer ci barke Cheikhul Khadim loo wax mu ne la waxal ak buuba soo ñëwee mu ne la poté yow xam nga njaga lañ la féetale njaga sa gaayin la xam nga yow buuba dalaa bëgg ma ne ko buuba nag man daf may indil ay problème léegi bàyyi ma dem si njaga buuba nduur at mi yàlla na nekk sa at yow ak sa soxna su rafet soo sulee soosulee bàyyi pa Philippe yàlla na sa doom ji pa Philippe Eh, raw eh, papaam ji Youssou nduur ci barke Serigne Touba ak xale buy téye micro yàlla na la yàlla may nga raw Youssou Ndour ci barke Cheikhul Khadim Mbacké ndax nee naa la am Youssou Ndour nag neex na te nag eh, ndamal jeeg la de am ku mel ni Youssou Ndour ah da ngay tàqale sa yaay ak layoo bi jeeg ay ca jox ma ko 88 628 20 20 allo. allo oui. da ngaa ree de allo allo waa noo duggee noonu. <laughs> ay rek. ma tas mbir mi ma ma ma ma ma defar tani ji. waaw. mu wasaani. Ah. léegi nag wax ma sa tuur Ibrahima Faye. Ibrahima bonne année. na at mi nekk sa at. amiin léegi yoon wi daa am ñaar ma jox la nga tànn benn. daa am yoon woo xam ne sama yoon la yoonu gañaa la fa ngay gañee euh, perruque yeeg yu baax yi. xam nga masque yi tax na kenn xàmmeetul kenn kii du tonton Assane Thiam ah mais ah daa yoon woo xam ne sama yoon la man fa laay teg samay mbasin ku wax waaw perte dangay ngay mais yoo beneen yoon wi nag lu ñuy maye la yoonu kado la tànnal ci ñaari yoon yi benn. yoonu kado laa bëgg li may tableau. ca kado ba nga jëm da ngay jëli kado. waaw damay jëli kado. poté damay <laughs> ay la wala yaay tànn. Ah, tànnal ma wóor naa ah kon téema laa tànnal comme tànn naa kaw la tànn naa Jurbel téema dem dëkku Macky Sall neex na la Fatick. ay ah, ca na lool. ayca bisimilah Fatick Fatick comme ay kado la dama ciy jiital sama waa ji rek Serigne Saliou ànduma moom fenn mu neenal ma Fatick. man yaa ngi xool. Ah, est-ce xam nga Wave. Ah, ah xam nga ko bu baax wala tuuti. lan nga ñu mën a wax ci moom.

ah sa xol baa ngi mel ne xolu yaayu Balla Gaye fi mu ne ay waay ji yàlla na sa 2021 nag demee nii ñu lay jox rek ngay encaissé mais est-ce que tabe nga booy xool booy xolli nag da ngay xolli laata de ah li may joxe dàq may moo dax moo dàq léegi nag 2021 bi yal la yàlla defal ay xéwal ngay joxe dégg nga. ay ca nañ àndandoo nga xool sa téléphone normalement message bi war na yegg si comme wave li muy daw dafa bari xool ko. bu émission bi jeexee continuer leen di woote ci euh, télé bi Kouthia Show mi ngi ñëw te xam ngeen ne moom macha allah bu ñëwee da koy gën a toj ñëw na. waaw ah, xanaa yaa kontaan nag. Ah, neel Amina naa. Amina kontaan naa. xaalis dafa dox jàmm ay cadeau doxul jàmm ay ca merci beaucoup ñu demaat euh, ci Facebook live 88 628 continuer leen di ma woo 20 20 88 628 22 22 Fatou Ndigal damay bàyyi sama rakk ji nga xam ne moom ba mu la bëggee laa ko bëgg ay ca ñu dem nag déglu ko Aïda loo wax. Aïda waaw d'accord damay bëgg a ñëw ci yaay sëñ Fallu aji madame ñu gaaw gaaw ndax journal a ngi jot nii waaw jaar ci borode bi Moussa Calaw Calaw mhm. Calaw Couture jamono mhm. ma joxe numéro 118 254. d' accord 59 39. moo jaar ci ñaw bi. di nuyu nag sama càmmiñ bu baax ci man. gaawal d' accord Caas Mbay. baayu comme ça. maa ngi koy nuyu bu baax ci euh, ku ci bëgg cuub bu rafet bi dangay woo Seydou daabo avant may joxaat ayda numéro Seydou Dabo mi ngi ci 77 355. Euh... 77 la cuub yi moo koy jaay non seulement yéen ñu bëgg a jaayaat dem leen fa prix en la leen koy jaayee euh, commerçant yu mag yi ci réew mi yëpp moom moo leen di jox en gros ay bagages 77 cinq 35 21 Seydou Dabo merci beaucoup Pape Aw mi ko ñaw euh, merci beaucoup Amélia merci beaucoup 355 35 21 ngeen am cuub bu yanj bi ci Seydou daabo ku ciy jaay it ak loo mënt di bëgg a jaay ci ay wàllum piis demal nga seeti ko nga ne loo wax yow naawal sondeel ba ñu lay wax ba nga fay Fatou Ndigal yal na la yàlla defal jàmm te wéral baat bi ak ñii nga àndal rawatina sa sarak ji nga xam ne ca kaw la lay xool yal na leen yàlla defal jàmm defal ko bépp artiste kuy téye micro ak bépp doomu aadama di gërëm nag équipe technique bi euh, TFM képp koo xamante ne yaa ngi fi liggéey si di euh, daan sa doole ndax sa wërsëg yal na la yàlla fulal lépp ba nga am fi lu kawe sa njortu ndax tele bi mënuñoo lim ñëpp mais ku ci nekk xam nga fi nga ñu toll ba tax na yéen ñëpp ñi ngi leen di wax mention spéciale 2020 bi yal na nekk seen 2020. ci barke Seydina Mohamed di ko njëkkee nag ci sama ñaari doomu yaay yooyu alintaal ak caane yàlla nañ gudd fan waa kër Kumba Daabo yi nga xam ne ñoom ñoo ñu yar ba ñu mel nii ñoom ñoom ñëpp ñi ngi leen di ñaanal ñoom day awa Guèye Ndeye Guèye yaayu mi naa ak Faama ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal wér kulim juum dañu bàyyi faatu ndigal comme dañ ko invité woon mu xëy si 7 ci télé bi dañ koy bàyyi nag moom itamit mu tàggatoo waaw Amina li may tàggatoo mooy. Mhm. li ma tàmbalee di. journal nag léegi ñun ñu génn ci koy bref. di mhm. santaat yàlla di nuyuwaat bàjjen Fandaw mi jaar tissu bi ñaar ci ñaw bi. Mhm. di sëtu Mame Mourad Ndaw ma ci jaar di nuyu waa kër Mame Mourad Ndaw yépp waaye di nuyu sama groupe bi ma àndal. muy Calan Sène ak ay rakam. sëtu sañ-sañ. ak élage mi jóge ba Jurbel di sama doom di sama xarit mm-hmm. ak bàcc mee nga xamante ne ndeysaan di théâtre kat bu mag chéri xadi ak bas mi ak Baye Fall yëpp mm-hmm. di nuyu ñëpp Amina mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci barke Serigne Saliou ayca tàggool waa Amina maa ngi kontaan di la bëggee di nuyu sama mag di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ñaanal at mi yan na doon seen numéro téléphone ñëpp a ngi koy laaj gaaw seen numéro nag joxe woon naa ko fi waaye dama da ngay def ay jàkkaarloo joxe 77 778 21 20 77 778 21 20 waa groupe Ndigal Bomb. ayca mi ngi noonu lu may remercier artistes yi mu àndaloon nee naa leen télévision moo demee noonu bu ñu heure tënkee souvent nii lay demee ndax dañuy topp neex-neex ba li ñu war a wax yëpp duñ ko mën a wax waaye képp ku ñuy seetaan ak foo mënti di nekk 2021 bi yàlla na nekk seen at ci barki Seydina Mohamed mu nekk at moo xam ne nag lépp loo xam ne ñu ngi ko doon defante wala ñu ko doon waxante ci lu ñaaw nañ ko bàyyi gannaaw te ku ne patienté xaar wërsëgam ndax yàlla miy séddale du jël yëfu Moussa di ko jox Amadou kon dal leen ngeen am yar ak teggin surtout nañu duggee yar ak dal ak doylu ak sincérité ci biir 2021 ku ko ci def di nga gis njariñ merci beaucoup yéen ñi 2021 euh, euh, ñor ngeen bëgg koo àndandook moom ci jàmm ak mbégte yàlla na leen ci yàlla fulal seen lépp jiili borom baxdaat si semi ñu àndaloon euh, meuble yi waa naka décor Touba ameublement waa Touba ameublement ñi ngi kontaan ci ñoom émission plateau yu rafet yëpp ñoom ñoo ñu ko fournir ku ci bëgg ay meuble dangay dem seeti leen continuer leen di ñu woo ci 88 zéro cinq 20 88 628 04 05 88 628 76 nan la Touba ameublement waaw yow tamit lii ma la waxal nii kontaan loola si c'est arrêté li la metti mooy si sa ñaareel ba nga aye ñu teel la yëkkati te xaaju guddi nga tëdd baax na ci kenn dootuma engagé jërëjëf kontaan naa ci groupe Futur Média ñoom euh, euh, Alaaji Malick Pape Cissé Eva Kumba xale yëpp ku lim juum ak ñoom Fifi ak toog toog yal na la yàlla may li nga bëgg lépp ci 2021 bi sama tchadien bi waaye yaa ngi may jaxase bàyyi ma ma wax li ma bëgg a wax merci beaucoup euh, euh, njëkk bi ma njëkk ci télé bi tey ci première er janvier bi ma ubbi leen yal na mel ne ndoxum glace ci yéen yal na at mi nekk atum naataange ci yéen ndax lii fort na ci man rëy na ci man le 1er janvier 2021 ñu ne Amina Poté moo ubbi Futurs média loolu ndam la merci beaucoup da nga soxor merci beaucoup je vous ngeen xool journal. ku baax la ku dëgër daal bi laay